jërëjëf mbokk yi ñu suivre fu ngeen mën nag ñu ngi leen di bëgg di siyaar Lutte TV wasaare yéen site yëpp daal bari na fii nag la ñu gàkku woon bi mu bëri ak Boy Dakar tey waar nañu bi mu bëri ak Bébé mu war a jëm ci bisu mag samedi 11 mu fi mujj moom Bébé Diène 14 mars la woon 2022 2018 4 ans mu toog bëriwul retour am nag nee na fii la koy marqué nag gàkku ñu ngi lay bëgg di la siyaar maa leen di bëggee di siyaar di nuyu gi yëpp di waa koñ bi di leen jégalu ah si dérangement yee xam nga coono yi leen di teg waa koñ bi waa Laxale waa jàmbaar waa Sine Barak waa Aynaman ay say yi nekk si géejuwaay gi yëpp xam nga di nuyu Sénégal gi di nuyu mbokk ñi seraan ñëpp di gërëm ñi ñi fi teew suñu waa écurie maa leen di gërëm Lirou Diane ñoom Omar Bass ñoom ñoom ñoom ñoom ah xam nga li mu la wax euh, ñoom Alioune Seye ñoom Fils de Balla ñoom Youssou Ndour. ñoom Samba Laobé gars yi waa école bi yëpp ku lim da ngay juum suñu coach Lamine Faye ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di gërëm mbës xam nga gis nañ taxawaay bi di gërëm sama turandoo Malick Gakou sama turandoo Malick Gakou woo na ma sànq am na lu ma wax xam nga. ah woo na ma am na lu ma wax incha allah samedi. Hmm. dinañ gis lu doy waar. xam nga di gërëm Xaadim Touré. di nga gërëm ñëwal ci laamu ji gàkku foo toll sa diggante ak Bébé Diène. laaj gooma laamu ji de. waaw ci toll waaw pare naa. ah. Boucar Ndour na noo préparé laamu ji. ni ma préparé comme ni doon préparé laamu yëpp rek bëri naa 15 combats. Mhm. Mhm, waaw adversaire yi si man li ma doon liggéey rek laa liggéey. est-ce que ka nga daan dajal ak kii benn la. xam nga nit ku nekk bokkoo ak sa morom. man ak yow bokkuñu ñu liiru jaan bokku leen. ku nekk bokkoo ak sa morom. mais nag sport la ñu wax ñun képp ku ñuy dajeel dañu def li ñu war a def lépp maanaam ba may bëreeg ba booy Dakar ak ba may bëreeg Petit Niang na ma daan def noonu laa def amul lenn lu si changé dañuy ñaanlu dañuy entraîner dañuy contact dañuy musculation dañuy boxu dañuy def li ñu war a def lépp. nee na dafa yokk poids yow da ngaa wàññi poids. man wàññi ma poids sama dama dama maintenir son poids naturel dama maintenir son poids. waaw moo gën moo neex si man. Ah. waaw lu mu gën a bokkal gën a arrangé. moo moo gën neex si man. mais quatre ans mu toog ko bëriwul mais démb dafa war ci TFM ne retouram yow bii doo ko téye. waaw loolu waxi mbër la rek mbër fi mbër yi wax nañ fi lu ne dégg nañ fi mbër. waat dégg nañ fi mbër wax na fi lu ne mais la muy wax ak lay xew si géew ba du benn. luy xew si géew ba. luy xew si géew ba man maa koy def man maa koy duma man maa koy daan incha allah. nee na Bébé Diène gisaguñu mbër mu ko dirigé ci làmb ji est-ce que yaa koy dirigé. waaw léegi ndax mës ngaa gis ku ma dirigé si làmb. jeex na. kon buñ kon dañuy tase rek waaw da nga ni kenn musu ko man la woon man tamit kenn musuma diriger yaa ko wax. une minute yi ko Ama Baldé jox na. wax naa ko nee naa ko Ama Baldé bokkul si moom Ama Baldé Pikine la dëkk moom day taxawaalu rek maanaam moom benn SDF la boo xam ne amul gétt day taxawaalu fu nekk lay dem. Tivaouane Peulh Pikine Kër Massar Ñàqurab Kër Madiabel fu ne lay dem. day taxawaalu rek xam naa ko bu baax. da nga kaa localisé ni ma ko xamee li ma ko wax li mu am na am na am na yoo xam ne wax naa ko moom xam na ma xam na ne xam naa ko en tout cas laamu ja moom may na ma une minute trente secondes. Ama Baldé ko ko jox de. waaw kay léegi dinaa ko dinaa ko ko ko may quoi. bu ñëwul. waaw kay une minute trente secondes yàggul xam nga maa ngi koy xaar une minute trente secondes bu ñëwul ma ñëw. une minute trente secondes. bu jeexee bu ma ko fekkee. loo koy def. samedi incha allah waaw waaw. macha allah. au lieu de taxaw ci 10 combats 10 victoires nga infligé ko première défaite am Boy Dakar ba mu taxawee ci ci benn niveau bi lu waral loolu lu waral loolu ndax ci benn niveau bi. lu waral loolu lu waral ñëpp xam ngeen ko làmb ji moytante bi moo fi metti moo yàq làmb ji tey ba ma bëgg ba ma jugee ba ma jugee si Boy Dakar am na mbër yu bëri yoo xam ne proposé nañ ma leen waaw. promoteurs yi dox nañ samay combat ak ñi ay samay adversaires yoo xam ne ay potentiel lañ ñu daw avance bi loolu mënoo si dara te boo toogee woo ay ñaari at ñetti at da ngay tardé ba pare mënoo toog bañ a bëre say morom di bëre dañ lay dañ gën a raw xam nga sama digganteeg Bébé Diène jour bi samedi yàggatul waaw waaw. xam ne nga daan ngeen gis samedi tax-tax bu dawul bu areerul te moom nee na du areer te moom musuma kaa gis mu areer jàmbaar la jàmbaar la moom du areer champion la bu arbitre sifflé bu areerul ngeen gis kaani poobar ki masi moutarde. loolu dina saf vinaigre. mais moom ci ay biir waxam moom nee na. may leen ñu may leen ñu may leen ñu. moom ci ay biir waxam moom nee na yow ragal nga ndax dara première face à face bi wane na la Midina nangu woo ñëw. non non loolu waxi yàqu la rek. ay ragal nga loolu wax yu yàqu la. première face à face bi ñëwoo ku nekk ku nekk ku nekk xam na li tax ñëwuma. lu tax ñëwoo. yéen ñëpp xam ngeen ko. Médina gi mu doon. waa munu moom munu dëkk Médina ñu bu fa signature bi ma dem ànd fa samay nit ñuy rayante. sécurité am na fa. bu ñu gaañu amul sécurité. signature dem bi sax amul sécurité. waa bu de moom yàllaa ci wës ndox mu sedd. waaw koy yow xam nga li ma lay wax. sécurité ndegam ndegam TFM loolu loolu mënul amul sécurité waxuma la ak foofu mais biir Médina xam nga li ma wax loolu passé na quoi bu bëgguma si woon wax sax mais li nga wax moo tax ma leeral. Mhm. xam nga man ku xam na ni man bu fekee damaa war a ragal man damaa war a rey sama bopp. man amul ku may ragal si làmb làmb ji wax naa ko amul ku fiy tax ngemb si kaw roi des arènes laa lax ba si suuf amul ku fi tax ngemb koo xam ne war naa laa ragal wala ma ragal amul confiance bi ngay dégagé lan la bu ma ñàkkee confiance bis bu ma bëree bu ma bis bu ma jëlatee combat ba ñàkk confiance wala may ragal ma bàyyi bëre xam naa ne Lirou Diane daf may rey bilaay walaay waxatuñ loolu yaa ngi may wëteen ku daax la samedi leer ku daax a xeex leer incha allah samedi lay leer. koo ëpp doole. samedi lay leer. le grand monument. ñëwal xaarim maa leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar. waaw sama xol set na gis naa taxawaay bi rafet na gis nga ma xamal la benn affaire. lan la lamb moo tëradi. lamb moo waxul dëgg. waaye kii heure bi waroon na fekk mu dépassé fii bu yàgg. Ah. kii ñi tëj ci lamb ji. ñëpp moom moo leen daan. ki tëj ci lamb ji ñëpp moo leen daan su samdee ngeen xam ne lépp dëgg la. mais ba jël te teewoon ñëpp moo leen daan oh, ma ne la. daanaan la kenn ku leen tuddee bi jël daanaan la voilà waxal kan la fi daan ah. Fourrière dama sa ma xamal la benn affaire dama lay wax ah. xaadim xaadim Anta Seck ah. kii ndaanaan la lamb ji ku ma am nday at ku ma amul nday moo ci am ah. waaye heure bi war na fekk mu dépassé fii kii waa déglu ma rek ba waxati mobilisation dafa ndànk ba noppi kii heure bi war na fekk mu dépassé fii ndaanaan la ci biir ndaanaan yi waaw te du ragal bandi piir bandi du ragal su samdee samedi lu xew bu samedi waaw ngeen xam ne lépp dëgg maa ngi ñaan autorité yi nekk Guédiawaye ñëpp ñu jàppale ko Amar Bass kii doomu ndeyam la moo gàkkoo yàgg nañu vraiment mi ngi ci ginnaawam chaque jour lu mu mën xam naa lu mu mënul ko ci def trondoom Malick Gàkko ñoo ngi koy woo kii moom la duppee boppam te xam du ko seetaan Lat Diop ñoo ngi koy woo ci bis bi Aliou Sall ñoo ngi koy woo Ahmed Aïdara ñoo ngi koy képp kuy autorité nekk Guédiawaye ñëpp Babacar Diop Babacar Diop waaw képp kuy autorité nekk Guédiawaye waaw d'accord lañ ko tuddee dee leen jàppale ñoom ñaar ñëpp Bamba Fall su dee moom lañ tuddee làmb ñoom ñaar ñëpp war nañ jàppale su deful secret su deful kon ñoom ñaar ñëpp war nañ jàppale voilà waaw waaw waaw loolu la yaakaar xam nga waaw waaw loolu la yaakaar waaw loolu loolu man daal li may ñaan waa Géejawaay gépp nañ génn samedi samedi xam ne seen i doom a xewle. da ngeen dox de. seen i doom a xewle dagguñu bee dugguñu istat doo jëluñu oto dem istat dañuy dox. dem stade arène nationale xale yi yëngal ci kaw gàkko yëngal ci suuf te jour boobu dañ ci am ñaari bis Cheikh Super jamono da ciy bëre te gis naa ko léegi taxawaayam rafet na taxawaayam rafet na lii ñun Géejawaay ñoo bokk ndey ak baay xale yi ñoo bokk ndey ak baay mag ñu ñoo bokk ndey ak baay yal na nu yàlla defal jàmm képp ku am combat Géejawaay yàlla may la Gàkko daal samedi daal yàlla na ko yàlla may na vraiment ñoo ngi ñaan autorité yëpp ñu ñëw jàppale ko jërë ngeen jëf fi mu dëkk fi mu dëkk fi nga dëkk moom moo la fi ëpp ay nit du Pël Fuuta Sénégal la dëkk moo la ëpp ay nit Géejawaay ëpp la nit fii Sénégal waaw loolu yëpp loolu yëpp Pël Fuuta Pël Fuuta yi Sénégal man am naa ay xarit pël Fuuta. lu leer benn baa ngi nii. am naa ay ay ay ay papa am naa ay yaay pël Fuuta. ñëpp ay am naa ay nit yoo xam ne bëri nañ ay pël Fuuta yoo xam ne dañ may ñaanal. Sénégal ak Guinée benn lañ ñun ay africain lañ. xam nga be Diène fii la juddoo fii la yaroo fii la defee lépp dama ko doon tooñ rek naan ko dama ne daan delloo la Guinée mais moom fii la dëkk. mais nag mënu ma fay ëppale man du mënu ma nekk doomu géwal moom kay ba géejawaay nekk doomu géwal dëkk si dëkk bi dëkk di doomu kajoor di kajoor kajoor bu mag mu bëgg maa dëkk bi loolu mënul nekk mu ñëw tey war a bëri yow est ne revanche par procuration la dafa dugg Guédiawaye pour fayu ak aussi actuellement l'ascension fulgurante des de Guédiawaye les jeunes espoirs waa waa ñoo ngi sant yàlla bu baax géewaay dafa dafa am ay produit làmb am ay champion am ay espoir yoo xam ne ñëwuñu rek dugg si làmb dañoo dañ ko foowee bi ñu nekk xale ba léegi ndax dafa am ay mag yu fi nekkoon nekk si làmb ñu ñooñu ñooñu ñooñu ñii ay te ñii ay doomu mbër la ñii ñii ay xaritu doomu mbër la ñii ay ñii dañ si yaru xam nga ñun tëbuñu tëb rek dëgg dugg si làmb quoi làmm dañ koo tarbiyu dañ see yàgg xam nga kon ñun dara jaaxaluñ ci làmm ñoo ngi ñaan yàlla si série de victoire bi ñu nekk mu continuer Guédiawaye képp ku fi am combat muy mag muy xale yàlla may na la ndam. mobilisation bi ñëw ci mobilisation bi. non ren loolu moo wax naa ko nee naa ko càndum moo wax moom moo wax ba tudd càndum 2 ma ne ko da ngay li duggoon nga Guédiawaye am nga fa defet dubaat nga fa da nga fay amaat defet mobilisation bi ñëw bi. mobilisation bi. boo boo xoolee boo xoolee ñun ñun ñun comme wa ni ko Lirou Diane waxee ñun soxlawuñu ay kar dañuy dox dañuy dox dem stade. ticket nga soxla. kon ay billets lañ soxla te maa ngi si woo sama turandoo Malick Gakou di si woo Lat Diop di si woo Babacar Diop mu maa jàppal ma jàpp. balaa moo ñëw day fekk doomu ndey doomu ndey Karim Wade xam nga borom Ndakaaru xam nga di ci woo. di si woo Waly Faye Jamil logistique maa ngi ko si woo di si woo Modou Gueye Modou Gueye euh, sunu maire di si woo Ibou xam nga di si woo di si woo di si di si woo di si woo Bella xam nga di si woo Omar Bass sama waaji xam nga maa ngi si woo François kooku kooku kooku mention spéciale François Ndaw François kooku maanaam moom mi ngi si lépp moom suñu waay la ko da siy jàpp bu baax a baax a baax a baax a baax. xam nga maa ngi gërëm waa koñ bi sama gars yi. maa leen di gërëm bu baax a baax a maa ngi gërëm waa ñi dëkk si gox bi yëpp waa aysa yëpp ku lim da ngay juum xam nga. di nuyu sama mbokk séeréer waa Sine di nuyu waa Sine gi yëpp di leen gërëm di di nuyu di gërëm waa Fuuta waa kër waa kër Cerno Madani di gërëm waa Canaba Seck di gërëm waa kër maam Amari Ndak yëpp waa Canaba Seck yëpp maa ngi gërëm di gërëm waa Touba di gërëm waa kër Serigne Saliou yëpp di gërëm waa kër Sëñ Mbacke Ndiaye waa kër Balla Sylla Balla Sylla maa ngi lay woo ci combat bi combat bi sa xam nga di si woo waa waa waa waa waa waa di ci woo jantal Mara yëpp di si woo waa Cambérène waa Yoff maa ngi leen ciy woo xam nga di gërëm Sénégal gi ti waa Tiwaawan xam nga waa Njaasaan di gërëm euh, sérif yi di gërëm sérif yi sérif yëpp maa ngi leen gërëm xam nga euh, sérif si sérif sérif sérif Baxayda sérif Baxayda maa ngi koy ziar bu baax moo sëñ Xaadim xam nga di gërëm di gërëm gaa yëpp